xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam Ibrahima Kane. Sénégal am ndam lu rëy ci Afrobasket. muy lu historique euh, Ibrahima Kane ndaxte gulet Sénégal di nekk champion d'Afrique des moins de dix-huit ans. loolu nag ma nga xewee fale ca euh, Maputo ca capitalu Mozambique nag su gaynde yu ndaw yi daan finale équipe nationale bu Côte d'Ivoire 71 62 sunu gaynde yi nag euh, boole ci qualification ci coupe du monde moins de 18 ans yi nga xam ni dinañu ko amal ca 2013 fële ca Prague lañ koy amalee kon Ibrahima ñuy euh, euh, jaajëfal euh, gune yooyu def ndam lu rëy loolu fële ca Maputo dañuy wax ci wàllu football ginnaaw bi Joseph Koto génne siwal liste joueurs yi nga xam ne ni ñoom ñoo war a football match Sénégal Côte d'Ivoire entraîneur Pikine bii di Moustapha moom daal gis ni cadre ak jour équipe olympique bi daal ñëpp la yemale equipe bi bi ñu am yaakaar mooy équipe bi nga xam ni moom moo nekk ci bopp. Joseph Koto mi nga xamee ni euh, moom mooy entraîneur équipe bi te dañu ko dañu war a am confiance ci moom dañ koy déglu euh, moom Moustapha Seck ci euh, micro Sayer en Diop dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a relatif parce que tey ji ñiy joué ji woon ci Jeux olympiques yi ay ay ay internationaux sénégalais lañu ñi fi nekkoon aussi di jóge woon bata ay c'est des internationaux quelle que soit aussi équipe bi bi affronté Côte d'Ivoire c'est des joueurs sénégalais des internationaux sénégalais maintenant équipe bi nga xam ne nag yaakaar naa ni mooy mooy mooy mooy affronté Côte d'Ivoire mooy équipe bi nga xam ni moo nekk ci bopp Joseph Koto mu xalaat nit ñi bis ba ñoo war a mën a jouer Côte d'Ivoire jox ñu résultat bu baax euh, mu nekk lu ñuy ñaan aussi euh, donc équipe bi nga xam ne daal moom laa gis mooy équipe bi nga xam ne moom la Koto gis ak Abdou voilà kooku di Moustapha Seck nekk entraîneur AS Pikine Ibrahima Kane dañuy wéy ci wàllu football ak euh, championnat ca euh, bicim réew euh, fële ca Angleterre nag foofu door nañu ñaareelu journée bi sànq ca suba ak Manchester United mi daan fulam ñetti bal ci ñaar ak Robin van Persie dugal butam bu njëkk ci championnat ginnaaw bi mu sole mayo bu Manchester beneen jongante bu rëy dawoon ci diggante Chelsea ak Newcastle Newcastle bu Papis Demba Cissé ak Demba Ba Chelsea nag moom moo leen mujj daan euh, ñaari bal ci euh, dara ëllëg nag am jongante bu am solo bu nar a ci diggante Liverpool ak Manchester City fële ca France nag jamono ji ñuy wax ak yéen ña ngay ña ngay amal ñetteelu journée ba euh, fi mu nekk nii nag benn match daal moom moo jeexagum ci diggante Nice ak Lille bu sa Gana Gueye dañu def match nul ku nekk dugal ñaari bal fële ca Italie nag foofu tey la ñu door championnat ba ci diggante euh, Fiorentina ak Udinese Fiorentina daan Udinese euh, ñaari bal ci benn jamono ji ñuy wax ak yéen Juventus mi nekk champion en titre di dajek ak euh, Parme fële ca Allemagne foofu Bayern de Munich euh, tey la tàmbali moom tamit euh, dem fekki équipe bi di euh, Greuther Fürth daan ko ñetti bal ci dara Ibrahima Kane prononciation bi nag garantir ma ko ndaxte équipe boobu daanaka xamaguñ ko bu baax ndaxte mi ngi promu la mi ngi door a yéeg première division foofu ca Allemagne ca Espagne nag foofu ginnaaw classico bi amoon ci jeudi bi nag ëllëg la ñaari ponkal di football championnat Barcelone Barcelone di eh, fekki Osasuna équipe eh, bu Real Madrid dem di fekki eh, voisin boobu di Getafe dañuy dellu si fii ci Sénégal ak coow li nga xam ne jamono ji mu lëmbe làmb ji ak promoteur yi nga xam ni dañoo jël décision di duñu feeti mbër lu ëpp soixante-quinze millions te tamit ni bëggatuñ gis CNG askan wi nag àddu nañ ci ñu bëri nag gis ni mbër yi liggéey bi ñuy def daal jaar nañu fay leen cent ba ci cent cinquante millions dañ ciy teewlu euh, micro trottoir bi nga xamee ni Abdoul Aziz Ndiaye moom moo ñu ko amal ak Njatu Ndiaye. li ñu leen di fay xam nga bu dee soixante quinze millions du ñoom ñooy lekk soixante quinze millions yi ñoom kese parce que mbër boo gis këram instant yi ñu bëri ñu ngi fay fréquenté seen mbokk yi dañuy ñëw bu dul bu dul làmb sax dañuy dundal. xam nga ma maanaam mën naa ne la mën naa ne la liñ si lekk du bëri xanaa pour ñuy am si yeneen i seen yeneen i am di jàmm di leen defal wala ay affaires yu demee noonu ak voyage ñu si am ñuy am ay connaissances affaires yooyu war lañ leen mën a fay lu ëpp loolu. promoteur duñ yàlla duñ yonent duñ xutbu samaan yaa ngi dégg ñoom ñëpp kenn ku si nekk bi nga si dugg ñu ci bari xam nañ ci leen nekkoon danaan dañuy dëgg tëgg di perte dañuy liggéey di perte loolu liggéey yëpp la am liggéey boo mën di nekk da ngay liggéey di perte da ngay liggéey di gagné mais jamono dafay dox toll na jamono boo xam ne cent cinquante mille ngay fay mbër mais période bi ñu toll nii du cent cinquante mille fay mbër ñun bu ñu taxee bu ñu tëggee stade Demba man dagg naa billet vingt cinq mille dagg naa ko billet. dagg naa billet dix mille francs mais nan xool nan lay organiser ba sensibiliser amateurs yi ñu xool nan lay doxalee ak ñoom promoteurs yi euh, euh, euh, kii yi am seen ki nu mu tudd sponsors yi am ñu jëm a xool na lay négocier ak ñoom ji a xam na lañuy doxale lu ñu fexe ba juboo ci ak CNG mbëri rek nañ ko def waaye fokk ñoom ñett ñoo ñu ànd. CNG mbër mi promoteur bi. du arranger promoteurs yi du arranger CNG parce que sans CNG aussi. dans les normes kii lutte du am parce que CNG ñoom ñooy établir les les articles les articles yi nga xamante ne yooyu la ñuy tënk pour lutte mun a am est-ce que yaa ngi comprendre kon des fois il faut que ñoom ñoom ñaar ñu toog ñu mun a toog ba ci benn table waxtaan ba jibo comme ça ku ci nekk jéem a trouver sa intérêt bopp voilà kon euh, yéen a ngi ko dégg coow loolu nag euh, jeexagul ndaxte daal euh, làmb ji jamono ji ñu ngi ci bër waaye faw ñu toog waxtaan ngir rek xam Euh, ku nekk fu mu féete ak euh, yëf nan lay mën a wéyee Ibrahima Kane ñu jeexalee ko ci wàllu handball ak euh, final championnat bi ci góor ñi ak ci jigéen ñi di am jamono ji ñuy wax ak yéen ci góor ñi ci diggante Jaraaf ak Asfaal ci jigéen ñi nag saltige ak jamono loolu nag dinañu ci dellu si ak sunu ndaw li di Cheikh Sadibou jara mi ñu fa teewal Ibrahima kan di moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw.